Euh, le coordinateur de Gossas Bassirou Diouf Sène Kipé Aminata Jamila kii Fatima Meng et cetera et cetera ay jeunes yoo xamante ni franchement am nañu talent te am nañu yéene seen réew looloo tax may waxaat gars ci législative yi c'est une question de génération parce que on a vu les générations antérieures li fi jot a liggéey je rappelle que Transparency International nee na depuis indépendance jusqu'à présent 47 000 milliards lañu détourné ci Sénégal 47 000 millions lañu détourné ci Sénégal 47 000 milliards la doon déterminer Sénégal depuis genre depuis les indépendants nga xam xaalis boobu fi mu fi mu waroon dugg ak fi mu waroon féete réew mi. moo tax pour ñu dugg ci foofu laay daal moo tax ma ne pour l' essentiel Sénégal ñàkkul waaye sénégalais ñoo ñàkk. lan lañ imposé loolu mooy danoo jël lu bari suñu économie jox ko tubaab bi le projet inda souveraineté nationale dafay di souveraineté un peuple souverain juste et prospère loolu souveraineté moo jiit si lépp. boo jëlee pour l' essentiel de vos les entreprises étrangères ñoo occupé sa espace ñoom ñooy am les marchés ñoom ñooy gagné les marchés mais en réalité dafay yokk chômage ci lu bari projet bi ba léegi Euh, phase euh, théorie la nekk. pratique bi mm. gisaguñ ko sentir ko ci terrain bi. Mm. même su fekkee ni da ngeen fekk euh, dëkk boo xam ne surendetté. Mm. ak li nga xam ne mooy le pré le premier ministre def na ko fii face à la presse wax ni mag wi ak scandale yi mu fa fekk mais quand même ba léegi théorie ñi la ñu nekk phase pratique bi kañ la théorie bi ñi ngi naan projet projet projet bi kañ la ko sénégalais lambda bi di senti carrément ci panier de la ménagère xam na loo xam ne ñoo ngi allier phase théorie beeg phase pratique bi lu tax ma wax loolu te effectivement vous avez raison de rappeler que ni état bi nu fekkee dëkk bi c'est pas très reluisant comme on l'appelle un état en ruine lan fi fekk effectivement ñu ñu ñëpp ci boîte yi nekk danoo jaaxle quoi yaa ngi ko jéem rappeler na ni am na DG yoo xam ne franchement état yi nu fekkee réew mi dafa extraordinaire te man mën naa si wax par rapport ak fee ma nekk c'est pas pour a qu'on a pas alors qu'on a fait trouver sur place 880 millions de dettes loolu c'est terrible. un milliard nga ne un milliard. cent de budget on a 880 de dettes foofu laa loolu laa fekk ASEPEX. am. nga fekk fa 800. de dettes ci bor. ci bor maa nga foofu taxaw di nu xaar no da ngay tëdd di nelaw doo nelaw boo duggee si nekk tam nga jooy tellement c'est c'est terrible j'ai perdu plus de 10 15 kilos bi ma ñëwee ASEPEX ak léegi parce que simplement. situation bi dafa xaw a ma fekk fa nag ay jàmbaar ah di leen nuyu. jël nuyoo bi tekka si loxo secrétaire général soxna Oumou Ndiaye ak nuyoo bi tekka si le président du du des délégués Ba ma koy remercier bu baax. di remercier d'accord bi dinañ ci ñëw mais ci plateau gis nañ ni yéen ngi def conférence de presse maa ngi gis El mi ngi euh, tey moom casquette politique bi la la sol jël casquette ministre bi tegee côté ça veut dire que euh, les jeunes de Pastef focus bi ngeen wax di dem ci élection bi am majorité est-ce que foog ngeen ne dina yomb ak recours bi euh, Sénégal daal si waxoon la rek tempête dans un verre ak plus ou moins kuy bëgg dee di wéqu rek en quelque sorte quoi parce que xam na ni fan fan jëm moom défaite bi dafa leer à leur niveau quoi waxuma sax politiquement ñoom séparé bi am seen diggante autre mais la force de Pastef je pense pas que ñu mën ko résister quoi et pour des années encore et ils le moo tax ils ont tout à y gagner mooy le système là à être là pour ñafe pour ni bu ñu perdre seen prête bande ñun ñu ñu ñëwee mooy affaire de on a un challenge à relever malgré det yi ma lay wax ñun on est parce que on a un challenge on le prend comme un défi ñuy ñafe pour affaire boobu sortir koo dem ci DG yi nelaw tund yendal tund et je leur ai parfois aussi xaw leen noppal parce que facilement seen problème de santé mën na si am samedi dimanche chaque jour yaa ngi gis si terrain ñun ñuy on est en train de faire plus de terrain que dans dans on avait perdu des partenaires yoo xamante ni par rapport à une certaine gestion ils n'avaient plus confiance en nous on est en train de renouer avec ces partenaires etc pour gagner pour redorer notre blason refaire plus ou moins une santé en, par rapport à notre image vous avez parlé gis nga cet état des lieux ñëpp dañ ko war a def état des lieux boobu gars yi dañ ko war a def xamal Sénégal lan fekk xam ni buñ jëlee dara teg si réew mi sax daan wax ni non le président Bassirou Diomaye Faye jàmbaar la li état des lieux bi dafa nekk farata li nu fekk ASEPEX lool lañ fekk feneen loolu lañ fekkee ren dama dajeek euh, sama xarit sama frère euh, l'autre la euh, Kayta Fadilou xam nga ñoo dend ma koy nuyu au passage ni ko waa man de Fadilou affaire yi situation nii la del 800 nanga millions de dettes mu ni ma non saa man ma je suis à 106 milliards de dettes te noonu la demee AIBD noonu la demee COSEC noonu la demee feneen noonu la demee feneen. parce que simplement un moment dañ doon saboté wala. a réewam noonu. sabotage bu dul jeex te ñu doon dette bi ñuy dund ACPEX mën na indi benn tension diplomatique avec plus ou moins Doha parce que on m'appelle régulièrement am na benn adresse bu ñu fa bàyyi bu assez salé ñoom il m'appelle régulièrement pour me dire que ni non yéen vous nous devez tel vous nous devez tel te ils disent que ñu bëgg ñun ñu ka ko régler avant muy àgg si saisir les les autorités diplomatiques et autres man j'ai trouvé une situation tellement catastrophique que j'ai tout fait pour aller voir le ministre des finances ni ko boo nu jàppalewul salaire doon nu ko fay il nous a fait des promesses ñu koy ci di ko di wax rek bu ñu si mënee jàppale parce que ASEPEX situation am xaw na assez difficile. quand même mais mais situation boobu ci ban gestion wu kan la parce que docteur Malick Diop moo fa nekkoon kan la wala dafa nekk benn. Ah, gestion docteur Malick nag nga nga may ma nuyu ko. parce que ñëpp rafetlu liggéey parce que ku wax ASEPEX wax docteur Malick man ma koy. profité baax a baax effectivement di ko nuyu bu baax te tamit wan na toute sa générosité may masaw par rapport ak li xew ci parti bi mu nekkoon mais c'est un homme pétri de talent te ku bëgg Sénégal la ci li ñu mm. jot a liggéey mm-hmm. un homme correct courtois bëgg Sénégal man mii bi ma ñëwee ASEPEX lu ci bari ci man moo nag moom si lañ doon jokkoo ak di échanger franchement mu yéene ma daal mm-hmm. loolu mun naa ko témoin ci moom mais gis nga bor yi fan la gën a feeñee. Mm-hmm. mooy Doha mooy Zahra sama jigéen ku baax la aussi mais ma koy nuyu. mais mënu ma ko bañ a wax parce que sama jigéen aussi li may wax nii mooy bi nu mujjee dem Doha ah. Mm-hmm. Doha fa loon bàyyi ay bari du jeex. seul pavillon bi nee na 250 millions la ko defee te 250 millions yi par entente directe la te ko démarché am na lu mu ci wax quoi. beneen bi aussi mu bàyyi noog ay locaux yoo xam te ne parce que moom dafa envisagé woon ñu changé ay locaux. Mhm. elle avait dafa jàppoon ne peut-être fi nekk dafa xawoon yam mu bëgg dem feneen. depuis novembre 2023 novembre 2023 laay wax ñi ngi fay foofu alors que mun na fa dem mun na fa dikk ndax budget permettre sax pour ñu génn foofu te foofu mun yóbbu. 8 millions lan fa war a fay fii ñu ngi fi war fii fay 4 millions. di kii euh, kon fenn nga xam ne ngeen fay 8 millions demagoo leen fa tey yéen a ngi fay. man ba mu ñëwee laaj naa ko mais madame le ministre nga baal ma mais lu tax depuis novembre 2023 ba juin juillet mun dem déménager avant may ñëw non contexte politique bi nangam naa man ah. mais bi ma defee les pour et les contre si laa xam ni ñun par rapport ak tension budgétaire bu ñuy dund mun si 4 millions di dem fële nga xam te ne 8 millions la. waaw yenul maanaa de. yenul maanaa aussi patrimoine bâti pour ni ko léegi bu fokk mën boo nu mënee abal logo yoo xamante sax foofu la ñuy dem def fa sunuy logo nga xam te doon nu fay sax ñun ñun on preneur parce que budget bi mayewul lu bare. Mhm. mais li may expliquer rek mooy situation de ruine bi nga xam ne moom lañ fekk réew mi te ñi fi nekk di les hautes autorités ay jàmbaar dëgg bare. ñun situation yu ñu fekk yëpp dafa difficile mais gisoo kenn koo xam te ci DG mi ngi xaabaabal wala mi ngi xëccoo wala mi ngi naan jox ma oto tel jox ma confort tel jox ma frais de voyage tel jox ma frais de mission tel ñun ñëpp dañ resté suñu coin am benn seul challenge mooy relever boîte yi nga xam te moom lañu dénk parce que le président et son premier ministre dañu am confiance ñun te ñu ngi rafetlu ni effectivement les mêmes sacrifices yi nga xam te ñoom la ñuy consentir ñoom ci kaw ba nga xamante ne laaju extra ñun aussi ce sont les mêmes même sacrifices yooyu la ñuy consentir aussi au niveau de la base parce que effectivement on a des relevés je veux dire comme le président Ousmane Sonko li mu jot a def sacrifice ci salaire bi mu nekkee maire bi mu nekkee assemblée. Mhm. le président de la République Diomaye Faye aussi dépassé wul c'est-à-dire xaabaabuluñu quoi par rapport ak ñeneen ñi nga xamante ni. xam na nin fi nekk woon daal en quelque sorte léegi ce sont les mêmes sacrifices nag ñun ñi ci loolu jëm gisoo kenn ku lay wax naan la saa waay am fii avantage tel avantage tel non bien au contraire ñun bu ñuy waxtaan entre DG mhm. c'est plus pour des partages d'expérience boo defee woon nii boo waxee woon nii nii ngay def wutal partenariat tel et ñun entre DG ñu ngi lëkkaloo bu baax dem naa seet sama jigéen Sophie Sengassi mi nga xam te ne moo yor APDA ma koy bu baax mhm. lépp lu jëm si artisanat moo loon ko dénk ak sama jigéen Marie Rose Faye mi nga xam ne ADP moom moom moo ko yor les petites et moyennes entreprises mhm. ñëw na seet si ma ñu waxtaan parce que effectivement waaw gis nañ ne yéen euh, entre direction yi da am benn approche systémique bu extraordinaire bi ngeen mettre en place gis naan ASEPEC aussi bi ngi ci biir et c' très très important loolu mënul ñàkk d' ailleurs le docteur Babo Ba invité nañu suba ci benn on s'est rendu compte que bi ñu ñëwee toog si lañu xam ne ndekete ñun entreprise yi nga xamante ñoom lañ doon accompagner les mêmes entreprises yooyu la ADP mu doon accompagner même entreprise yooyu la APDA doon kii. même chose faisait te sama mbokk artisan yeeg sa moon entreprise nag ñoom dañu naan doon système boobu parfois ñëw soumettre la benn lettre d' accompagnement demaale APDA soumettre que a lettre d' accompagnement demaale ñun ñëpp. kii financé kii financé merci te régime bële aussi xam nga jaayante fulla beeg jaayante kii da xawoon bari ñun nag à notre niveau on très modeste. Mhm. xam na ni waxtaan moo ñuy jëmale kanam parce que ñun ñëpp doon soxlante partage d'expérience et ci loolu la nekk nga xamante ni. ñu ngi jëmale liggéey bi kanam bu baax d'accord alors euh, en tant que coordonnateur Pastef en même directeur général de la SEPEX donc euh, pour li nga xam ne mooy campagne comment ça va se passer ndax instant euh, campagne wàcc sur le terrain li may wax daal mooy parce que yenn euh, prône rupture. tam euh, ñu fi nekkoon dañ doon tëj seen i cabinet dem di campagne yi j'espère que cette fois-ci ce sera que lii moo ma neex parce que Saint-Louis naa fa quelques rares fois laa fay dem s'il y a des des programmes politiques majeurs ci laa.